Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ma ngi len di ziar yeen wa aduna bi di len wax ne Adji sar mi ngi bëgg réew mi té lool mom du fi amat ci gis na ay vidéo soxna yi wax nonu ma ngi len di féliciter gis nga nit ku ci nekk da ngay bëgg sa réew so bëggul sa réew nga genn ya xam benen réew boy dem waye 3 mars mom du fi amat mom. ndax sunu doom yi ci dé ñi nga xam ñoo seeni ndey Manam ñu ngay joy ba tey noppeeguñu man mi man mi xaw tuuti sama ben dom bi ma am mudé ci kon nak aji sar ngir yalla si tu vas aller quelque part allez vas-y mais tu commences à nous emmerder avec tes trucs là on peut plus on veut plus aussi on veut pas la guerre on veut la paix rien que la paix